xam nga got. got waaw ok. ñun Saalum Saalum lañ di. pire et dur. mag ñi buñ goraan ba pare dañuy bàyyi gott. dañuy bàyyi gott ci ginnaaw kër gi. dëgg la waaw. di fa gott boobu nag lu ne daan na fa xew. di fa demee aajo. waaw waaw mm. du loolu kese sax. Ah. Mm. même yenn ndimbal yi nii sutura bi yooyu noonu ci biir. waaw mm. lu bëri bëri danga nga daan ñëw ci mag wax ko ci jàkk ji mënul la fekk demal sa gott ba ca gannaaw ga jig nangam bi. Mm-hmm. boo demee la ma la waxoon mu nga fa. dëgg la ngay dem jëlal sa bopp. ndeysaan ndeysaan macha allah. doom du doom doo xam ne bàyyi jox na la. jamono doo xam ne bàyyi jox na la. loolu lépp ci sutura. léegi nag bi ñetti nay yi nekkee si gott bi. ak mm-hmm. mm-hmm. gaynde gi ne ñetti nay yi mënu mel ne boole noonu fàddale ndeysaan léegi xaaral ma teg stratégie. Serigne Dara ma Fall Thiam nee na mu ngi leen di nuyu. merci beaucoup su kooku sunu Serigne la. ndeysaan nuyu nañ ko bu a a <laughs> na ñeseen. ndeysaan ci daara sa xadara bu tedd ba. waaw xadaratul xudsi waaw moom mhm. sunu Serigne la. tarkalla macha allah moo nekk ca daaraay Alaay Omar Niass ja. ndeysaan fala Alaaji Sidi Lamine Niass tëdd. ndeysaan dëgg la fala Alaaji Ibrahima Niass tëdd. waaw. Mhm. ولا خليفة حازم محمد الناس ديسان ديسان ورم قف بربوح البوالي وابكي سنين الخوالي <laughs> ما نو وما ينقل واي لا نو نو دو ملا ينقل دو ملا ينقل خمنا فو ملا ينقل <laughs> <laughs> أيوه. ديسان ديسان alors gayne gi ne legi euh, naw ñu wé xon xon bi amu ñu lui xam ngeen lu ñuy def mhm. gis nga ñun bu nekk ci guddii mhm. rebb yi dañuy seen naw wéx Mhm. moo tax ñu ñuy ñu ñuy ñu ñuy seen mhm. parce que mhm. weexaan bi moo tax bàyyi leen ma dóor ko ma fàdd ko yàq ñu ne ko allez yi ñu bàyyi ko mu lekk ko fàdd ko mu des ci xanaa waxoon ko ak wu ñuul bi léegi mu ne waxoon ko bi ñun buñ buñ nekkee si euh, leer ñuulaayu nag wu ñuul bii moo ñuy signalé rëbb yi ndaa nga bàyyi ma fàdd ko mu fàdd ko mu bàyyi ko mu tampon ko léegi nag mu des ban bu xonq bi sëriñ Habib sëriñ Habib euh, sëriñ Daara Mafal nee na mu ngi lay nuyu nee na mu nuyul ma sëriñ Habib macha allah Mafal Thiam waaw waaw mu nekk sa daara ja waaw daara yi Balaaji Omar mm. Niass Dia ndeysaan mm. ndeysaan borom julli gu gu nangu ga waaw comme Moussa jiite seeram aram na sax allahu akbar nettalil ma ko loolu mm-hmm. barki alxuraan mm-hmm. nee na léegi maa ngi New York la wax de waaw ah, mu ngi New York waaw loolu la wax léegi de waaw am na solo nag loolu de yëguma ko woon loolu de baax non euh, ëtt boobu waaw ëtt boobu lu fa waay euh, lu fa waay def uh-huh. suuf sa sax boo ko tuddee raayo ko fu la neex dem si àddina dëgg la mooy lew naña seet léegi nag nawu xonq wi des fi ak mu mm-hmm. gaynde gi mm-hmm. mu ne ko préparel mm-hmm. li rey say morom moo lay rey lu say morom mooy sàggan ak seetaan oh. ak nangoo ko moo tax ay nit bu ñu nekkee ci documentaire yi sax léeg-léeg da nga koy gis da koy dégg effectivement moo tax bu leen nit nangu ku leen tàqale yéen njaboot topp leen seen baay. Mhm. topp leen seen mag. Mhm. topp leen seen kilifa. waaye bu ngeen beddee ko rek ne nangu maa am kilifa. Mhm. dañ leen damm poñet poñet lañ leen di dem. dem taalee ko matt wala taalee ko ñeex. dëgg la amul sax werante. kon c'est très important lépp boobu rek si bëggoon a indi. am na solo wane ne yàlla. moo ne. darab allah masalan ma baudatan fa maa fawqaa mooy lépp du tuti ndax yàlla sadna lépp bu gëna tuti yo lo rek la ci bëgona yok yokk waxtu wi xaru ñu danaka 20 minutes 20 minutes moom mo ñu way way way waxtana ki fa neex lu dëgg gi jijeel ka waaw xam nga got got waaw okay ñun <laughs> salum salum lañ di pire et dur mag ni buñ goraan ba paré dañuy bàyyi gott ci ginnaaw kër gi deug la waaw difa gottu bobu nak nag lu na fa xew difa fa aajo waaw du loolu kessé sax ah. même yenn ndimbal yi ni su bi ak yoy non ci bir waaw lu bari bari da nga daan ñëw ci mag wax ko ci jakk ji mënul la fekk demal sa gottu ba ci gannaaw ga ci nangam bu mm-hmm. bo demee lama la waxon mu nga fa da ngay dem jëlal sa bopp ndeysaan ndeysaan macha machallah doom doon doom do xamné ne jox na la jabar mm-hmm. do xam ne bàyyi jox na la loolu lepp ci sutura légui nak bi ñet nay nekké ci gottu bi bi ak gaynde mhm. gaynde gi ne ñetti na yi mënu mel ne boole noonu fàdd leen ndeysaan léegi xaaral ma teg stratégie mhm. sëriñ Daara ma Fall Thiam nee na mu ngi leen di nuyu mhm. merci beaucoup kooku sunu sëriñ la ndeysaan nuyu nañ ko bu baax a baax a baax <laughs> nga ca lew na ñaseen sa xadara bu tedd ba xadaratul xudsi moom sunu sëriñ la tarkalla macha allah moo nekk ca daaraay Alaay Omar Ñas ja fala alaaji Sidi Lamine Ñas tëdd ndeysaan dëgg la fala alaaji Ibrahima Ñas tëdd fala xalifatul Xaasim Mouhamad Ñas ndeysaan